ay déglukat yàgg nañ ko sàkku ñu baamtuwaat ak yéen émission bi tuddoon mashahid yawmil qiyaama nekkoon na mbir mu waxoon nañ ca ca weeru koor yi weesu boobaak léegi mu ngi mat si juróomi at waaye yàlla dogal na band bi nekkatul fii moo tax mbokk yi demandé ñu baamtu ak yéen mashahid yowmal qiyam léegi nag xam naa ne dana am daal luñ ci baamtuwaat ndax nekk na thème bu rëy na lool mëne su ko matal ci waxtaan wu demee ni ki nii waaye ñu ngi yaakaar buur bi tabaraka wa di ko ñaan daal mu may ñu ñu mën ko dégg yal na mu may ñu kàttan itam ba ñu mën a jëfandikoo li muy wax ndax yàlla moom rekk moo yore tawfiq mooy jubal ku ko neex ci yoon wi gën a jub yowmul qiyaamati bés la boo xam ne yàlla dina ca boole mboolem nit ñi ci benn béréb mu sampal leen baskil ñiy peese seeni jëf bu keroogee képp koo xam ne sa jëf yu baax ñoo ëpp alquran nee na ngoon suñu gërëm ngay am wala dund bu ñu gërëm ngay am ko ci xam ne nag sa jëf yu baax woyof na bay yu bon yi ëpp ko nee na kooku moom xaawiyam moo di këram bés la boo qiyaam ñépp ñoo koy dikkal nekk yi jaamitam itam ñeel borom bi tabaraka wa taala alquran àdduna ci nee na in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahman abda laqad axsaahum wa addahum adda wa kulluhum aatihi yowma alqiyamati farda ci suratu mariam nee na amul kenn lu mooy bu yowma jotee soo dekkee di ñëw ci kanam yàlla doo nekk kilifa doo nekk ab waaye dangay nekk rek jaamu yàlla yàlla nee ñépp keroog bu ñuy ñëw kenn kenn lañ la ñuy ñëwee kon kenn du ànd ak kenn ba yaakaar sax mu di la dimbale loolu mooy yowmal qiyaam si ka nekkul ci dikkam alquran nee na wa anna saata la aatiyatun laa rayba fiha wa anna allaha yabaasu man fi lqubuur am na it wa anna saa aatiya laa rayba fiha wa anna allaha yabaasu man fi lqubuur ci suratul xajj kon si ka nekkul ci ak dikkam jàng na itam anna saata laa rayba fiiha walakin aktara annaas laa yuminuun ci xaafiri jàng nañ itam inna saa aatiyatun akaadu uxfiiha litujzia kulla nafsin bima tasaa ci suratu taaha kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ak i yoo xam ne dafay tekki ne kon bés penc bés la bu nar na ñëw sikk nekku ci te képp koo xam ne gëmuloo ak dikkam itam yàlla dogal na yow sa njulit dafa manki bokk na ci sarti julit daal nga gëm dikkug bés penc léegi nag baatu yow ma ñëw na ci alquran ñetti téeméeri yoon ak ñeent fukk ak euh, juróom-ñett maanaam trois cent quarante-huit tudd na ko yow ma yow ma yooyu yëpp yi ci gën a bari yowmal qiyaam lañ ca jublu loolu moo tax ñu xam ne kon yowmal qiyaam bis la bu mbiram daal màgg na ay kéemtaan itam bari na am tiitam itam jéggi na dayo kon loolu lañuy ñu jéem a tënk tey waxtaan ci ak yéen xam naa dañu mën a tënk sax masaahid yépp waaye danañ ci jéem a jël benn xaaj incha allah aman na sax ñu tënkal leen ci lu mat juróom-ñett fukki yow ma bu jëkk bi ñoo ngi tàmbali ci suuratul baqara yàlla ngi naan li yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla na ngeen joxe ci liñ leen wërsëgal léegi te jublu ci jëmm yàlla ja na ngeen def loolu nag balaa bés ñëw bés boo xam ne su ñëwee boo jaayee du jarati xarit bu lay xettali itam du am mu ne anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yaatiya yowmun la bayun fiihi wala xulla ci suratul baqara borom bi tabaraka wa taala nee na yow yonent bi alayka salaatu mu yéemu na su fekkee ne indi nañ la yow ñu indi doomu aadama yépp dajal leen ca kanam yàlla bés ba yàlla yi penc ak ñoom muy bés boo xam ne sikk nekku ca mu ne keroog bés bu màgg lay doon fa kayfa is jamaanaahum li yawmin laa rayba fii naka nanu nee na bés penc bu ñëwee bakkan bu nekk lépp lu mu liggéeyoon ci àddina dana ko fekk ñu teewal ko ca kanamam su baaxee mu xam ne moo ko def su bonee mu xam ne moo ko def buñ koy def bu ko kenn yëgulit yàlla yëgoon na ko ak i ñu bind ko tegal la yawma tajidu kullu nafsin maa amilat min xayrin muxdaran naka noonu borom bi tabaraka wa taala nee na dafay am ay kanam yoo xam ne keroog dañuy kontaan te bég lool ndax yërmande yàlla ja ndax imaan bu ñu amoon ci àddina waaye dina am kanam yoo xam ne dañuy ñëkk lool te mer lool ndax mbugal maag mooy yàlla gi nga xam ne moom lañ nekke woon ci àddina mu ne yawma tabyaddu wujuhun wa taswadu wujuh borom bi tabaraka wa taala nee na am na ay bakkaar yu koo xam ne yaa ngi koy toggoo ni ki sàcc jël alali jaambur yi moo xam ci mànga nga sàcc walla ci leneen yowmal qiyaam boy dekki dañu lay takkal lépp loo sàccoon muy yëngu mel ni ay jóolóoli mu ne wa man yaxlul yaati bi ma xalla yowm alqiyaama borom bi tabaraka wa nee na dee mbir la mu ku nekk da nga ko mos te itam nag ku nekk danga dee jant fenk jant so dara du xew sa montor bi nga takkoon sax du taxaw àddina la dal di wéy rek jant fenk soo ñëpp añ ñëpp reer ñu fàtte la soo nekkee ko am maanaa am benn journal bu rëdd ci benn koñ bu tuuti saw tur ñépp gis kook sa foto ñu fàtte la boo légee ñu ëmbee ko caaf sànni ko su fekkee amuloo maanaa nag far loola sax moom far dootoo ko far am kon nag ngir la mu ku nekk da nga ci jaar kon nag ku nekk war nga jéem am looy def balaa yawmal qiyaama jot alquran ne kullu nafsin daayiqatul mawt wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaama naka noonu borom bi tabaraka nee na koo xam ne weddi woon nga yàlla te weddi malaaka yi nga weddi téere yi weddi yonente yi weddi bés pénc kooka réer nga réer gu màgg goo xam ne bés boo dajeeg sa borom da xam ne mbirum yàlla amul kaf amul caaxaan te yàlla nag lépp lim nu waxoon ma nga koy def nee na woon naa leen bind bind nañu mu ne mu naa leen indi ci àddina indi nañu mu ne ma dundal leen dundal nanu mu ne ma rey leen ku deegul it sa mbokk dee na sa xarit ak ku la jege xam nga ne yaa ciy topp mu ne bu àllaaxira ku nekk ma fay ko kon na ku weddi kooku réer na wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmi al axir faqad dalla dalalan baida borom tabaraka wa taala nee na képp koo xam ne danga dëggu di wax dëgg di def dëgg yaa ngi koy xam bés bu muy dekkee ak bés bu muy dajeek yàlla keroot la dëggay jariñ ndax dëgg dana aar borom dana ko musal ci lakk mu ne qaala allahu haza yowma yanfaau saadiqina sidquhum naka noonu borom bi tabaraka wa taala nee na bés bés dana ñëw ma nga doomu aadama yëpp ñu daje ci benn béréb képp ku amoon ay xiram wala ay bokkaale képp ku doon jaamu ku duhul yàlla su keregee ñu taxawal leen yàlla ne léegi nag ana ñi ngeen doon jaamu te duwuñu yàlla nañu ñëw bu ñu mënee dara ñu def ko wa yawma naxshuruhum jamian summa naqulu lilladina ashraku ayna shurakaaukum alladina tazamuun borom bi tabaraka ko taala nee na koo xam ne danga nga fàttee bés pénc da nga bés bi ngay dajeek yàlla te fàtte ko mooy defoo dara lu baax ngir bés ba defoo dara lu baax ngir yaakaar yaakaare dajeg yàlla bàyyiwoo lu bon ngir ragal dajeg yàlla bu kerogee yiwit ñu fàttale ca safara sa ni nga fàtte woon bés bii al yawma nansaakum kama nasuu liqaa yawmihim haza borom bi tabaraka wa taala nee na bés penc bu ñëwee képp ku daawoo jaamu yàlla mooykati yàlla yeeg defkati njaaxum yeeg turkati deret yeeg sàcckati alali nit ñeeg ñi nga xam ne ñooy toggoo ñaawteef ya bés la boo xam ne dañ leen di lakk ca safara di leen jàllar bi di lakk wet gi bu ñoree ñu jàllar bi bale boor bu ñoree ñu dëpp ko bu ñoree ñu jaaxaanal ko bu mu ñor xom dana bëgg a dee sax te du mën a dee yawma yuhma alayha fi naari jahannam fa tukwa biha jibaahum wa junubuhum borom bi tabaraka wa taala nee na bés bu ñu fangee nit ñi ñu daje ci kanam yàlla mu ne dafay mel ni àddina ak li mu yàgg ci nun yépp danañ ko fàttee ndax tiitu bés pénc day mel ni àddina benn waxtu rekk lañ ca amoon jaar fa rek dem mbir mu gàttee noonu nag warul jar ngay dugg safara warul jar ngay nekk ci mbugal moo xam ne du jeexati wa yawma yaxshuruhum kaan lam yalbasu illa saatan min annaar borom bi tabaraka wa taala nee na bu ñu demee àllaaxira ba dékki amul kenn koo xam ne yaay wax ñu di la déglooti amul kenn kuy joxe benn ndigal wala benn ordre ci kenn wala ci lenn yàlla nee na keroog ku wax sax man maa la jox ndigal yawma yaati laa tukallimu nafsun illa bi ni borom bi tabaraka wa nee na su fekkee ñori nañu suuf si jële fi asamaan si dama dama yi ci suuf yépp ñu ne fëng nag dajeeg yàlla keroog yàlla rek mooy kenn mooy na mu ne keroog defkati bàkkaar yi ñu ngi leen di lënkale di leen takkante ñaar ñaar joñ leen yóbbu leen safara yawma tubaddalu l ardu xeyra ard wa والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد borom bi tabaraka wa taala nee na iblis ak ñëpp ñi mu àndal bi nga xamee ne bëgg nañoo nax yàlla naan ko muñal ñu ba bés bi ñuy dekki yàlla na ko yow ak ñëpp ñi jubadeeg ak ñi def mooy yàlla ak ñi nga xam ne ñu ngi cipp cippi yàlla may leen wértu duñ jaamu yàlla yàlla ñu ne yéen ñépp maa ngi leen di xaar ci bés boo xam ne am na waxtu wu ñu xam innaka min al munzarin ila yawmi alwaqti borom bi tabaraka wa taala nee na bu alaxira bakkan bu nekk dana ñëw di dàgge sante ak borom ba naan ko yow yaa may seede fii ci kanam yàlla ma nar lakk ñu nar maa dugal safara te yow xam nga ne su ma duggee safara doo ca mucc ku nekk da nga xuloog sa bopp naan bakkan naan loxo lu tax nga seede tànk lu tax nga seede naan yaa demoon nangam yaa defoon nangam yàlla nag nekk roog lu waay am yaa ko fa def yàlla du tooñ kenn yawma taati kullu nafsin tujaadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum laa yuzlamuun borom bi tabaraka wa taala nee na bu dekki amee yowmal qiyaam ku nekk dañu lay jox sab téere ndax ñu ngi la booleeg ay malaaka muy kiraaman kaatibiin sooy dox ki jiitu ki topp ci gannaaw boo toogee ki ci ndeyjoor ki ci càmmoñ boo tëddee ki ci bopp bi ki ci tànk yi lépp loo def bind nañu ko su ko defee bu yomul qiyaamee ñuy ne téere bi becc ci sa kanam ne jàngal keroog ku mën a jàng ku mën a mënta jàng ñëpp ay mën a jàng nga jàng say bakkaar ak say jaar-jaar ba sottal dal ngay xam nag yow léegi fan nga jëm ndax yaa xisaab sa bopp jàng nga li nga def ba sottal mu ne iqra kitaabak kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba yàlla nee na yowmal qiyaam dañu naan montagne yi dem leen ñu dellu fañ jóge woon suuf si ne fëng amatul montagne amatul xur amatul géej ñu fëng ñépp duñ bàyyi kenn bépp woote bu ñu woo doomu aadama dana am ku ñëwul ba mu des keroog bu keroogee kenn du tarde wa yawma nusayyiru aljibaal wa tara al arda baarizatan wa xasharnaahum falam nugaadir minhum ahada borom bi tabaraka wa taala ku yaakaar ne day am koy àndal yowmal qiyaam am koy lënkooga ku lay dimbalee ku lay xettali ndax bu ngeen may bu ngeen di dekki di ñëw ci man kenn kenn ngeen di ñëwee wa kulluhum aatihi yowmal qiyaamati farda borom bi tabaraka wa bu ñu walee ci bufta bi mooy ñu wal nga liir gi ne jóg leen dekki jot na ee yéen yàpp yi ñeppatikoo yi ci biir suuf ee yéen kawar yu tasaaroo yi ee yéen yax yu funax yi jóg ngeen dekki way ji seen borom mu ne nga gis keroog nag defkati bakkaar ya ñu fa nga leen seen bët yaa nga xollere ñu nga tiit ku nekk ngay xulli nag yow ma yen faxu fi suuri wa naxshuru almujrimin yowma idin zurqa borom bi tabaraka wa taala nee na damay taxañ asamaan si ni ñuy taxañee naru gu ñuy taxañee ay téere jële ko fi ngeen ne fëng ngeen janok man lu waay def keroog ma fay la ko su baaxee santal yàlla bu bonee yeddal sa bopp yow yawma natwi samaa sama tayyi sijli lil kitaab borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyaam bés la boo xam ne tiit ma dana bari dana màgg bee jigéen sax dana fàtte doom jim juróon ak doom jim nàmpaloon jigéen mën na ca tiit sax ba la mu ëmboon daldi sippeeku keroog danga gis nit ñi nañuy kër kër yeeg ni ñuy dóore seen bopp ci lépp lu ñu gis dafay mel ni dañoo màndi te màndi sax mbugalam yàlla ma rekk moo màgg keroog mu daldi ne yawma tarawnahaa tasalu kullu murdiatin amma ardaat wa tadacu kulla zaati xamlin xamlaha wa tara annaasa sukaaraa wa maa bi sukaaraa walakin adaab allahi shadiid borom bi tabaraka wa taala nee su fekkee ne dee dikk na te yow daawoo jaamu yàlla yow gëmoo woon yàlla alali kale sàcc nga ko dereti kale tuur nga ko dereb kii lawta lawtee nga ko tooñ nga yàq nga jaamoo yàlla amuloo imaan te dee ñëw na nag mu ne nga tiit nag naan nañ ma delloo ci àddina ndax ma jëfaat jëf ju yiw yàlla ne la ah loolu de waaye yaa koy wax rek loolu wax la jooy wax rek waaye xam nga ne àddina dootoo ci dellu yow koy yaa ngi jëm barzaq barzaq mooy fii ñi nekk bu ñu deeyee balaa ñoo dekki mu ne yow xam nga ne barzaq nga jëm mu ne xam naa ne nag ndem maa ngi bokk ci fami sàngam ak askan sangam maa ngi bokk ci askanu nangam ak nangam amaan na kon yàlla yërëm ma ndax sama askan woo xam ne baax na yàlla ne waaye bu ñu walee ci bufte bi nag askan amut te duñu laajati moo tax mu ne xata ida jaa ahaduhum almawt qaala rabbi irjiuni laalli amalu saalihan fi ma taraktu yàlla ne kalla innaha kalimatun huwa qaayiluha wa min waraihim barzaqun ila yawmi yubasuun fa ida nufixa fi suur falan saaba baynahum yowma idin wala yatasaaluun borom bi tabaraka wa taala nee na ba tey yowmal qiyaam bu jotee bés la boo xam ne saw làmmiñ dafay seede li cër yi doon def loxo yi dañuy seede li jëmm ji doon def tànk yi dañuy seede li jëmm ji doon def foo ma sa dem def fa lu ñaaw tànk yi wax ko loo mas a te waroo ko téye loxo yi wax ko loo mas wax te waroo ko wax làmmiñ wi seede ko su ko defee ñu fay la yépp yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yamaluun borom bi tabaraka a taala nee na bés penc bu ñëwee képp koo xam ne li nga doon jaamu duhut yàlla dañu lay fanga nga ñëw yaag li nga doon jaamu wala ki nga doon jaamu yàlla ne waaw yéen ñii ñu doon jaamu moo xam xëram nga moo xam nit nga ndax yenn a réeral sama jaam yi ba jaamootuñ ma xëram ya wala nit ñañ doon jaamu wala xëram ya tontu na yàlla yow day ku sell nga xam nga ne du yàlla ci nun nuy jël leneen lu may yow mu nekk ñuy méngoo suñuy mbir nit ñi koy jaamu wuñ ñu woon xanaa yaa leen jox ay xéewal ñoog seen baay addina neex ak ñoom ñu fàttee alquran moo taxit ñu mujj nekk di way alku kon nag koy jaamu na nga jaamu yàlla <clears throat> ndax képp koy jaamoog lépp looy jaamu bu àllaaxira loola day génne ci say mbir moo tax mu ne wa yawma yaxshuruhum wa ma yacbuduuna min duunillah fa yaquul a antum adaltum cibaadi haula am hum dallu sabil qaalu subhaanak ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا ذكرى وكانوا قوما بورا borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyaam alal jëriñ ay doom xam ne bu mucc ci bokkaale bu mucc ci kéefër mu dafa du jëriñ dara bu fekkee moom dong nga yaakaar te imaan nekkul ci xol bi wala ay doom nga yaakaar te imaan ñëwut ak koo mën a jur ak ku la mën a jurit boo amul imaan doo dem aljan yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyaam bu jotee danañu fanga xeet wu yépp def leen ak maas xeet wu nekk ñu fanga leen ñu nekk benn kuré bokk na ci ñu daan weddi alquran ñooñu nag ñoom la ñuy teree walis yërmande yàlla ja wa yawma naxshuru min kulli ummatin fawjan ma man yakdibu bi ayatina fa hum yuzaun borom bi tabaraka wa taala nee na alaxira bu ñëwee ñépp ñi nga xam ne dañ leen doon jaamu te duwuñ yàlla te terewuñu loola te yëg nañu ko te terewuñu ko ak lépp loo xam ne xëram la ñu di ko jaamu yàlla day taxawal ñooña ne ana sama morom ya ña ñu doon jaamu ne ñooy samay morom lu ñu mën nañ def tey wa yow ma yawma yunaadihim fa yaqulu ayna shurakaai lazina kuntum tazaamuun borom bi tabaraka wa taala nee na ku jaamu ku duwut yàlla wala nga jaamu lu duwut yàlla bu àllaaxira ka nga doon jaamoog la nga doon jaamu bu ngeen janoo fekk moom mënul dara foofu yow it mënoo dara mënoo dara sa bopp nga di ko rëbb naan ko subboohun yow lii lépp yaa ko yóbbee moom it mu naan la subboohun yow yaa ma topp di ma jaamu ba ma yëg ko ba yaakaar ne mën naa dara yaa ma ko yóbbee ñoom ñëpp ñuy rëbbante yàlla ne jarul rëbbante yéen ñëpp safara ngeen jëm kenn du leen teqale moo loolu lay wax naan yowma alqiyaamati yakfuru baadukum bi baad wa yalaanu baadukum baada wa ma'waakumu naar wa ma lakum min naasiriin borom bi tabaaraka wa taala nee na bu yowmal qiyaam jotee defkati bàkkaar yi ñoom ñëpp danañu tiit danañu ragal ndax nit a gën a xam boppam ku nekk loo def xam nga ko ku jub baax nga xam nga ku baax xam nga ku bon xam nga ku dëngit xam nga ndax nit ku nekk yaa gën a xam sa bopp wa yowma taqumu saa yowma idin yatafarraquun borom bi tabaaraka wa taala nee na bu keroogee ñu teqale leen nee na yowmal qiyaam bu jotee mooy bésab atte bi képp koo xam ne gëm weddi woon nga yàlla dem ba yowmal qiyaam ngay gëm-gëm lu dootul la jëriñ duñ la muñal doo dellu si ci àddina itam ku xas dem rek bu baaxul dootul baax qul yowmal fatih laa yanfau alladina kafaru imaanuhum wala hum yunzaruun borom bi tabaraka wa taala nee na bu fekkee ne topploo yàlla topploo xadiis yonent bi topploo sunna nekk ci lu la neex bu yowmal qiyaamee ñu lakk la di la walbati ci safara di la lakk di walbati nga naan ay man réccu naa yelante ma toppoon yàlla ak yonentam fekk wéy na yowma tuqallabu wujuhum fi nnaar yaquluuna yaa laytana ataana allaha wa ataana rasul borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyaam bu fekkee ne ñëw na ñun duñ jëriñante foofule kenn du fa mën a jariñ kenn dara kenn ni itam du fa mën a xarab nit wala nga di ko lor mbir ma yépp ci yàlla lay nekk fal yawma laa yamliku baadukum li baadin nafaan wala darran borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyaam képp ko doon jaamu wala nga di ko bokkaale moom sax bu yowmal qiyaamee day weddi loola daf naan jotewuñu dara mësoo maa jaamu mësoo maa def nangam ak ki nangam yàlla nag ne boo amee looy sippi ci mbir moo mën a dana am yàlla ne kenn mënut laa mbir mu leer ku tol ni man yàlla mi nga xam ne maa ko xam te man mi ko xam maa la wax ne bu yomal qiyaamee képp ko doon jaamu day weddi jaamu ga day génn ci sa mbir te it kenn mënul laa nettali mbir mu leer ba mel ni man yàlla mi nga xam ne maa ko xam mu ne wa yowmal yakfuruuna bi shirkikum wala yunabbi'uka mislu xabiir borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyaam dañuy kaste sa gémmiñ loxo yi di wax luñ mës a téye tànk yi di seede fuñ mës a dem lépp li nga defoon ci lu bon ñu fay la ko bu baaxee yéen ñu fay la ko al yawma na ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibuun borom bi tabaraka wa taala nee na bu àllaaxira danañu boole fang ñëpp ñëpp ñu tooñoon seen bopp ci shirku ñëpp ñu amaloon imaan ñëpp ñu daawut jàmm yàlla ñu fanga leen boole leen ak seeni jabar lënkale leen ak lépp luñ doon jàmm te duwut yàlla yóbbu leen safara ñu nga leen ñu jëm safara su ko defee ñi nga xam ne itam ñu taxawal leen ci bunt ba ne yéen yéenay responsable ci li fi xew mooy njaboot njaboot gi nga xam ne doo leen jàngal doo leen jubbanti doo leen yar ci diine soo baaxee dëkk julleeg woor it ñoom buñ naree dem safara buñ demee ba buntu safara ñu ne ay yàlla suñu baay ak suñu wayjur ak suñu kilifa ga képp ma ngay dem aljanna te moonu responsable woon te musuñoo jaarale ci yoonu dëgg yàlla ne wax leen ña leen nañ taxaw ndax ñoom ñooy responsable ci bon bon yi ñu taxaw ñu boole leen ñoom ñëpp yóbbu safara <coughs> moo tax mu ne واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين borom bi tabaraka wa taala nee na ñi nga xam ne dañoo réer ba topp yoonu yàlla ñooña mbugal mu métti ma ngi leen di xaar ndax dañoo fàtte woon ne bés bi ñu leen di xisaab dana ñëw dañoo fàtte woon ne bés bi ñuy taxaw ci kanam yàlla dana ñëw inna alladina na an sabilillahi lahum adabun shadid bima nasu yowm al xisaab borom bi tabaraka wa taala nee na yowm al qiyaam da nga gis képp ku weddi woon yàlla seeni kanam dafay ñëkk ndax xam nañu li ñu def xam nañ liñ leen nar a fayee mu di safara wa yowma alqiyaamati tara alladina kadabu ala allahi wujuhum maswadda borom bi tabaraka wa taala nee na yowma alqiyaam bakkan bu nekk lépp loo mas a def ci àddina danañ la ko fay te kenn du la tooñ du yokk du wàññeeku bu baaxee sax ñu fulande ko waaye su bonee nag kenn du la tooñ te yàlla ku gaaw nu muy xisaabee la al yowma tujzaa kullu nafsin bima kasabat laa zulma al inna laa sariul xisaab borom bi tabaraka wa taala nee na yowm al qiyaam dañuy fanga noonu yàlla yépp yóbbu safara te kenn du leen mën a teree dem safara te noonu yàlla mooy koo xam ne li yàlla digle doo ko def li mu teree doo ko bay wa yowma yuxcharu aadaaullahi ila nnaar fa hum yuzaun borom bi tabaraka wa taala nee na kon na ngeen wëy si jëm ci wooteeb bi mu di ñu am imaan ak ixlaas tey jaamu yàlla def ci yi mu diglee lépp lu nu man li mu teree nu bàyyi léppam mu ne ndax kat alaaxira bu ñëwee kenn amul fooy weeru kenn du am ndëgër laay kenn du am fooy weeru ci yàlla rek moom la ñuy mën a wéeru keroog istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun laa maradda lahu min allah ma lakum min maljain yawma idin wa ma lakum min nakir borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyaam bu ñëwee képp ku daan tooñ wala nga daan sàkkal yàlla bokkaale wala morom moo xam ci turam la moo xam ci melokaan la keroog dara mënul laa jariñ ndam deyaale nga shirku safara rek mooy sa mbir walan yanfaakum al yowma id dalamtum annakum fi l aadaabi mushtarikuun borom bi tabaraka wa taala nee na ci safara ñeel na ñi nga xam ne ñoo weddi muy mbugal moo xam ne mu metti la muy xuru ca safara fa waylun lilladina kafaru min adabi yawmin alim borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyaam man yàlla maay téye téye gu mag nag ci ñi nga xam ne daawuñ ma jaamu bu keroogee man yàlla muntaqim lay lay lay alqiyaamati tara alladina kadabu ala allahi wujuhum maswadda borom bi tabaraka wa taala nee na qiyaam bakkan bu nekk lépp loo mas def ci àddina danañ la ko fay te kenn du la tooñ du yokk du wàññeeku bu baaxee sax ñu fulande ko waaye su bonee nag kenn du la tooñ te yàlla ku gaaw nu muy xisaabee la al yawma tujzaa kullu nafsin bima kasabat laa zulma al inna laa sariul xisaab borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyaam dañuy fanga noonu yàlla yépp yóbbu safara te kenn du leen mën a teree dem safara te noonu yàlla mooy ko xam ne li yàlla digle doo ko def li mu teree doo ko bay wa yowma yuxcharu aadaullahi ila naar fa hum yuzaun borom bi tabaraka wa taala nee na kon na ngeen wëy si jëm ci woote yàlla bi mu di ñoo am imaan ak tey jàmm yàlla def ci yi mu diglee lépp lu nu man li mu teree nu bàyyi léppam mu ne ndax kat alaaxira bu ñëwee kenn amul fooy wéeru kenn du am ndëgër lay kenn du am fooy wéeru ci yàlla rek moom la ñuy mën a wéeru keroog istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun laa maradda lahu min allah maa lakum min maljain yawma idin wa maa lakum min nakir borom bi tabaraka wa taala yowmal qiyaam bu ñëwee képp ku daan tooñ wala nga daan sàkkal yàlla bokkaale wala morom moo xam ci turam la moo xam ci melokaan la keroog dara mënul laa jëriñ ndam deyaale nga ak shirku safara rek mooy sa mbir walan yanfaakum al yawma id dalamtum annakum fi l aadaabi mushtarikuun borom bi tabaraka wa taala nee na xur ci safara ñeel na ñi nga xam ne ñoo weddi muy mbugal moo xam ne mu metti la muy xuru ca safara fa waylun lilladina kafaru min adabi yawmin alim borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyaam man yàlla maay téye téye gu mag nag ci ñi nga xam ne daawuñ ma jaamoo bu kerogee man yàlla muntaqim lay lay lay àllaaxira ku fa jaamul yàlla am xarit bu baax du tax nga mucc su fekkee baaxewu la woon ci àddina ba digal la yoonu dëgg mu ne xarit du fa jariñ kenn du dimbale kenn kenn du tere kenn yawma laa yuxni mawlan an mawlan shay'a wala hum yunsaruun borom bi tabaraka wa taala nee na bu kerogee ku nekk danañ la woo jox la sa soo jàngee ba mu wóor la ne lii yaa ko def ñu fay la lépp loo defoon kullu ummatin tudaa ila kitaabiha al yawma tujzawna ma kuntum taamaluun borom bi tabaraka wa taala nee na bés penc bu ñëwee képp ku daan yàq ak mooy yàlla keroog ngay perte nag te perte nag mooy yow yowmal qiyaam ndax fii mën nga ñàkk ba yàgg nga am mën nga néew doole ñu dimbale la mën nga yelwaan mën nañ la sarax mën nañ laa lebal alaaxira nag duñ fa leble duñ fa saraxee duñ fa mayee kon ku fa perte nag yaa perte wa yowma taqumu saa yowma idin yaxsaru almubtiluun borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyaam dañuy exposé ñi weddi yàlla yépp ci kanam safara ne leen ma nga àddina day jeex na lépp lu neexoon defoon ngeen ko ci àddina léegi nag bànneexu ngeen àddina jeex na fii nag àllaaxira la daaw leen topp yàlla tey ñu fay leen mbugal moo xam ne mu leen di doyadal la tey ñu fey leen seen ak rëy rëylu ci àddina ba bañ a jaamu yàlla tey ñu fay leen seen ak gën topp moo tax mu ne wa yawma yu'radu alladina kafaru ala naar adhabtum tayibaatikum fi xayaatikum addunya wastamtactum biha falyawma tujzawna adaab alhuun bima kuntum tastakbiruuna fi l ard bi geyri alxaq wa ma kuntum tafsuquun borom bi tabaraka wa taala nee na safara nag dana fees dell dell dell ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo bañoon a jaamu yàlla ba yàlla naan jahannama ndax fees nga mu naan yàlla ndax amuloo loo may dolli yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid borom bi tabaraka wa taala nee na bu àlaxira ñu dégg kuy yéy ne kuy woo te day jege ñépp ndax ñépp koy dégg ñu ngay dégg xaacu gi ci dëgg ñu naan tey la bésab dékki tey la bésab pay tey la bés boo xam ne lu waay defoon dañ la nañ la ko jox tey mu ne wastamaa yawma yunaadi almunaadi min makaanin qarib yawma yasmacuuna sayata bilxaq dalika yawm alxuruj borom bi tabaraka wa taala nee na nit a ngi laaj sax naan bés penca kañ la mu ne waa yàlla nee na mooy bés bi nga xam ne képp ku daawul jaamu yàlla danañ la bugal ca safara yasaluuna ayaana yawmu diin yawma hum ala naari yuftanuun borom bi tabaraka wa taala nee na man mën a fexe ak nekk kaccoor bari pexeeg yeew du jëriñ dara ci àllaaxira àllaaxira kay la fay jëriñ mooy dikkal yàlla fekk sa xol a ngi set wecc gëm yàlla fekk sa xol a ngi set wecc ku nekku ci waaye bari ay pexe ak i man-man ak yeewute rek kese du jëriñ dara yawma laa yugni an anhum kayduhum kay wala hum yunsaruun borom bi tabaraka wa taala nee na danañu diri mooykati yàlla ya ca biir safara teg leen ca xal ya di leen wët di leen diri ak seen xarkanam ya naan leen mos leen lakku safara mu ne yawma yusbaxuuna fi nnaari ala wujuhihim uduqu masa saqar borom bi tabaraka wa taala nee na bu fekkee ne xotti nañu asamaan fu waayi toll woon dal di génn fu malaaka toll woon dal di wàcc si su ko defee nga gis ko mu mel ni dafay yeey nee na bu keroogee day ah, ana kam ci xéwali borom bi ngeen di weddi yéen nit ak jinne bu kerogee amul kenn koo xam ne seen ay bakkaaram danañ ko laaj nit wala ñu laaj ko jinne bu kerogee ku nekk say bakkaar yow lañ koy laaj amul kenn kuy responsable morom ma yowmal qiyaam ku nekk ak sa bàmmeel ku nekk ak sa dekki ku nekk ak sa téere ku nekk ak sa bakkaar ku nekk ak sa jëf mu ne fa idan shaqati sama fa kaanat wardatan kaddihaan fa bi ay alaa'i rabbikuma tukadibaan fa yawma idin laa yusalu an danbihi insun wala jaan borom bi tabaraka wa taala nee na ñi nga xam ne dañoo weddi dekki naan nit ki matériel rek la su dee gisul ko ci suuf mu def taxallul mbaam lekk ko mu soppeeku mbaam wala nag wala xar ñu nekk ay matérialiste ñu ne loolu rek la waaye dekki du am xanaa ko dee rekk jeex na mu yàlla ne ñu nga naan ndax bu ñu dee ba nekk suuf ba nekk ay yax yu funax ñu dekkal ak suñ bàyyi jëkk yi yàlla ne wallahi ñi njëkk a dee ak ñi mujj dee yéen ñëpp daa leen boole ci benn randiwu ngeen dekki ku ne ma fay ko li mu doon jëf mu ne ay iza mitnaa wa kunnaa turaaban wa izaaman innaa la mabuusuun aw aabaa'una al awwaluun qul inna al awwaliina wal aaxiriin la majmuucuuna ilaa miqaati yowmin maaluum borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyaam bu jotee amul kenn kuy ger kenn amul buux la ñaari dërëm amul bindab chèque jox la nga baal ma amul am lu ma la neexal nga jéggal ma loola amul foofu ndax yowmal qiyaam moom nanguwul bagage accompagné waaye feret rek la nangu lépp looy def pour yowmal qiyaam léegi bi ngay wér di nay di ko mën nga koy def waaye nag toog ba yowmal qiyaam ngay def chèque du sotti toog ba feebar ba ne lëcc ba dee des nga naan nañ jox diw nangam bu ma dee du sotti yowmal qiyaam moom jotu ak njar ak neexlaate du fa jëriñ dara fal yowma laa yuuxadu minkum fidya wala min alladina kafaru borom bi tabaraka wa taala nee na ba nga xam ne danañ leen dekkal danañu waxal ku nekk li mu doon def ci àddina te danañ ko ko fay yowma yabaasuhum allahu jamian fa yunabbihum bima amilu borom bi tabaraka wa taala nee bokk ci ñu baax du jëriñ àllaaxira am doom yu baax du jëriñ àllaaxira lay jëriñ daal mooy nga mucc tey jaamu yàlla sa xol ñàkk am benn shirku yàlla ne bu keroogee may teqale mbir ya lan tanfaakum arxaamukum wala awlaadukum yowma alqiyaama yafsilu baynakum borom bi tabaraka wa nee na bés ba ñuy boole ñépp ci mel ni penc mooy bés penc keroog day mooy bésab naxante maanaam mooy bésab xëbante mooy képp ku naxoon ci àddina ba jaamu woon yàlla keroog la nax yay feeñ nag yow ma yajmaukum keroog mooy bésam mbugal yow ma yajmaukum li yowm aljamci dalika na képp koo ne dangaa weddi yàlla bu àlaxira dootu nag dama koo xamuloo nag dama ko yëguloo nag du daal du jëriñ foofu lépp lu waay di def na ay précaution fii ci àddina tànnal yoonu aljanna ngi nii mooy jaamu yàlla te gëm ko tànnal yoonu safaraa ngi nii mooy jaamu sa bakkan ak seytaane yaa ayyuha alladina kafaru laa taataziru alyawm innama tujzawna ma kuntum taamaluun borom bi tabaraka wa nee na bis boo xam ne danañu uññi peer ba ñu woo nit ñëpp sujjóot dañuy dekki ñu ne ana ñi daawul julli ana ñi daawul woor ana ñi daawul jaamu yàlla ñu ne ko noo ñu ne yàlla noo ngi nii mu ne ay ca julli leen nag ñu ne bëret di bëgg julli fekk duñ mën a julli ñu ne julli wey na tey su ko defee ni nga buqi seen bët ya toroxtaane ñëw ci seen kaw yàlla ne nakam ca àddina woowoon naa leen ne ñëw leen julli fekk yéen a ngi mucc di cataŋ cataŋe ngeen lànk yonent yi bëgg wax mu ne yonent yi bay leen ma bu ma kenn jàpp bu ma kenn waxe baleen naa ki nga xam ne daf doon weddi bés bi bali ma santaane woon daawu ko def yawma yukshafu an saaq wa yud'awna ila sujud fala yastati'una khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillatun wa qad kanu yud'awna ila sujud wa hum salimun fazarni wa man yukadibu bi hada alhadis borom bi tabaraka wa taala nee na yawma alqiyam bés la boo xam ne képp koo xam ne gëmoo woon yàlla daawoo dimbale ay miskiin bu kerogee doo am benn xarit bu lay musal doo am wenn ñam woo xam ne danga ko lekk ci safara lu mooy dëtti wànjar bi nga xam ne def ko ci bàkkaar yi ñoo koy lekk innahu kaana laa yuminu billahi alazim wala yaxuddu ala taami almiskin fa laysa lahu alyawma hahuna xamim wala taamun illa min gislin laa yaakuluhu illa alxaati'un borom bi tabaraka wa taala nee na na nga bàyyi caaxaankat yi ñu fo ñu caaxaan ba ba ñuy dajee seen bés bi nga xam ne moom lañ leen di dal kon noonu borom bi tabaraka wa noonu la waxe waxee nee na yowmal qiyaam bés la boo xam ne nit ñëpp dañuy génn ci seeni armeel di way gaawtu jëm ci yàlla mu nekk rek dafay mel ni dafa am menn mbir mu leen sampal wala xërëm bu ñu kontaan keroog boo gisee nit ñi enthousiasme bu ñuy am bu ñuy dekki pour uy ji yàlla mu ne ñu nga xulli seen bët ya nag dana ci am ñu moos toroxtaane nga ci seen kaw yàlla ne leen bés bi ngeen doon weddi day yowmal qiyaam mu ngi nii loolu lay wax naan yowma yaxrujuuna min al ajdaasi siraan ka annahum ila nasbin yufiduun xaashiatan absaaruhum taraaquhum dilla dalika al yowm alladi kaanu yuaduun borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyaam bu mu asamaan dañ koy bàyyi mu yeey mel ni përëm buy yeey doj yi ñu mokkal ko mu mel ni ngëndal bu kër kerogee amul benn xarit buy laaj xarit ba dara wala mu di ko dimbale xamaloon nañ leen ci àddina ngeen bañ bu kerogee def ko ci bakkaar yi danañu mébét suñu mënoon a jotu ci mbugalam yàlla ba génn ca da gis koo xam ne dana bëggoon sax ñu jël doomam lakk ko te mu mucc am koo xam ne dana bëgg ñu lakk jabaram te mu mucc am koo xam ne dana bëgg ñu lakk frère te mu mucc am koo xam ne dana bëgg ñu jël ay sëtam yépp sóob ca safara te mu mucc am koo xam ne dafaan yàlla jëlal ñi ci àddina yépp ñu nekk sama njot nga lakk leen te mu mucc yàlla ne déeréet loolu du mën a am saw lakk yow rek lañ koy lakk loolu la alquran di wax naan yawma takuunu samaau kal muhli wa takuunu aljibaalu kal ihni wala yusalu xamiimun xamiima yubassaruunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min aadaabi yawma idin bi baniih wa saaxibatihi wa axiih wa fasilatihi allati tu'wiih wa man fi ardi jamiican summa yunjiih kallaa innahaa lazaa dee wallaahi safara yow rek yaa fay jëm borom bi tabaraka wa taala nee na bis bi suuf di rëng-rëng yi xeer yi rëng-rëng yi xeer yi ñi bàyyi ko mu mel ni ki pënd boo xam ne day naaw mu ne keroog la bésab dekki keroog la bésab pay lu waaye jëf keroog ñi jox la ko yawma tarjufu al ardu wal jibaal wa kaanat al jibaalu kasiban mahila borom bi tabaraka wa taala nee na kawteef naka ngeen di mën a weddee yowmal qiyaam naka ngeen di ñàkk gëmee yowmal qiyaam te bés la boo xam ne gune sax dana juddu dal di bejjaaw ngir tiit bés la boo xam ne asamaan day xotteeku xar bés la boo xam ne dëlëb yàlla keroog dana dana teew lii day ak waar la feeg yéen a ngi dund déglu leen waar gi ku mu neex nag yàlla nee na ku mu neex nga jàpp ci yoonu yàlla jaar fa ku mu neex nga nekk ci àddina waaye bés a ngi ñëw yàlla moom kenn du ko raw bés dana ñëw ñu takk say tànk takk say loxo laxas la ci juróom-ñaari mètre perkal waqifu tuuti tëral la fa làmba sa bakkan bi ba tekku ci koosu suuf yi suul la rokkos ba dootoo jàllar bi ne yàlla waa jàngook ñu naan tey lañ koy jëbal sa boromam yàlla ne bu keragee man dooma raw moo tax mu ne fa kayfa tattaquun in kafartum yawman yaj'alul wildaana shiba as-samaa'u munfatirun bihi kaana wa'duhu maf'uula inna hadihi taskira fa man shaa attaxada ila rabbihi sabila borom bi tabaraka wa taala nee na bu malaaka mi walee ca ngëlliir ga ne eey yéen yax yu funax yi eey kawar yu tasaaroo yi eey yéen yàpp yu ñëpp tikoo yi ci biir suuf jóg leen oy seen borom yàlla ne keroog day bés la bu jafe na waaye bés la bu jafe na ci ñi nga xam ne ñoo doon weddi yàlla te daawuñu ko topp fa ida nuqira fi naaquur fa dalika yawmaidin yawmun asir ala alkafirina gayru yasir borom bi tabaraka wa taala nee na bu keroogee defkati bàkkaar yépp dañ leen di taxawal ca bunte safara ñu ne waaw yéen nan ngeen doon sàgganee ci àddina bay dugg safara seen tontu ñu ne ñun dey yàlla daawunu julli ñun dey daawun leel miskin ñun dey dañ daan xuus ci caaxaan ànd ak nit ñi ñun dey danoo gëmutoon sax ne bés bi dana ñëw alquran ne yatasaaluuna an almujrimin ma salakakum fi saqar qaalu lam naku min almusallin walam naku nutcimu almiskin wa kunna naxuudu ma alxaayidin wa kunna nukaddibu bi yawmi ddin xatta atana alyaqin yàlla nekkoon nag ramum koy rammukat dootul leen jëriñ fama tanfaauhum shafaatu shafiin borom bi tabaraka wa taala nee na nit ñaa ngi laaj sax naan waaw bés penc moom waxkat yaa ngi ciy wax xutbakat yaa ngi wax waaye bés penc kañ la yàlla ne mooy bés bi nga xam ne bu ñu toogee bee sëbbat di melxati leeru weer wi ñu jële ko fi yàlla boole jant weer jële leen fi keroog la bés penc yi ñëw bu keroogee nit dina tiit naan ana fan laa daw jëm ana fan laay wéeru yàlla ne déeréet daw jëm fenn amul wéeru ci kenn amul kenn kuy xettali amul tey kay ci kanam yàlla rek tey kay danañ la wax lépp loo mës jiital ci àddina ak loo mujj def lépp tey danañ la ko won waaye ndeke doomu aadama moo gën a xam boppam kon ku baax xam nga ne baax nga waaye ku dëngitam keroog xam nga ne yaa dëngoon kon daf lay wóor ne yow kenn tooñut la yasalu ayaana yowma alqiyaama fa ida baraqa albasar wa xasafa alqamar wa jumia alchamsu walqamar yaqulu alinsan yowma idin ayna almafar kalla laa wazara ila rabbika yowma idin almustaqar yunabbau alinsanu yowma idin bima qaddama wa axar bal alinsanu ala nafsihi basira borom bi tabaraka wa taala nee na noonu la ñuy def ak defkati bakkaar yi qurwa ca safara yowmal qiyaam ñeel naa ñépp ñu doon weddi kazalika nafaalu bil mujrimin waylun yowma idin lil mukaddibin borom bi tabaraka wa taala nee na bu dekki amee ñu teg baskil bi muy baskil bu neex boo xam ne boo ca tegee kawar mu génne ko kawar ak jaambur gooma sa dog sax te tooñ ko dana ko génnee jëf ju baax jooma sa def dana ko génnee laa yuxaadiru saxiira wala kabira ila ahsaaha su keroogee ni dina seen frère muy ñëw nga daw ndax léegi tey mu ne manqué naa benn gramme kaay ma nga seen sa yaay nga daw ndax léegi tey mu ne manqué naa benn gramme nit seen baayam daw ndax léegi tey mu ne manqué naa kaay mottalil ma nga seen sa jabar di ko daw di daw sa doom kon kenn du jariñ kenn kenn du dimbale kenn kenn du mënal kenn ku nekk rek loo def ñu fay la ko loolu mooy màndoog yàlla gi su ko defee ñu ne ko waral mu ne ndax ku nekk euh, danga am keroog mbir mu la doy yawma yafiru almaru min axii wa ummihi wa abiih wa saahibatihi wa baniih li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughniihi yàlla ne ku nekk keroog am nga mbir mu doy na la borom bi tabaraka wa nee na bés bi nga xam ne mooy bés pénc bu suuf rëng-rëngee la koy topp topp ko bu kerogee la bésab jàqare yow ma tarjufu raajifa tatbauha raadifa qulubun yow ma isin waajifa borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyaam benn bakkan du mënal benn bakkan dara yàlla sax wax ji bi mu koy wax siiratu nakira la indi benn bakkan du mënal morom ma dara yowmal qiyaam mbir mi yëpp yàllaa ko yore keroog kon nag kuy daw dawal jëm ci yàlla kuy jaamu jaamul yàlla kuy yaakaar yaakaaral yàlla kuy sukkandiku sukkandikul ci yàlla kuy wéeru wéerul ci yàlla kuy sàkku ndimbal sakku ko ci yàlla moo tax mu ne yowma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yowma idin lillah borom bi tabaraka wa taala nee na ab téere la boo xam ne dañ koy bind bind ci lépp loo xam ne def nga ko bu kerogee mbugal ñeel na képp ku weddi woon yàlla kitaabun marquum waylun yawma izin lil mukaddibiin borom bi tabaraka wa taala nee na la nga defoon ci guddi kenn fekkewu ko la nga làqu woon fu sori kenn gisut la la nga defoon te yaakaar ne kenn fekkewu ko mu yowmal qiyaamee dañuy génne lépp mu dal di feeñ te doo am kàttan kenn du la dimbale yawma tubla sarairu fa maa lahu min quwatin wala naasir borom bi tabaraka wa taala nee na yowm alqiyaam dana am keroog ay jëmma yoo xam ne dañuy toroxlu dana am yoo xam ne keroog itam dañuy tiit wujuhun yowma idin xaashiatun aamilatun naasiba borom bi tabaraka wa taala nee na yowm alqiyaam amul kenn ku ñu war a bugal kenn ñëw sowe la wala mu ne bugal leen ma te ku nekk amul kenn ku ñu war a tënk wala ñu war laa jañ keneen ñëw ne tënkale nopp te ba ku nekk sa mbugal yow lañ koy bugal say njoñ yow lañ koy jañ yawma idin laa yuaddibu azabu ahad wala yuusaqu wasaaqu ahad borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyaam bés la boo xam ne nit ñi dañuy gongeeku dañuy gongeeku ñoom ñépp nekk ñi di way teqalikoo ngir ñu seet seeni jëf nag yawma yawma idin yasduru nnaasu ashtaatan li yaraw amalahum borom bi tabaraka wa taala nee na xéewal yi ma leen di jox na ngeen ma sant ndox mu sedd maako moom maa moom lekk maa moom naan bu xéewal ñëwee na ngeen ma sant waaye bu leen sant ku duwut yàlla ndax xéewal ci man rek lay joge te man yàlla waat naa ne yowmal qiyaam képp ku ma jox xéewal nga bañ maa sant sant keneen danaa la ko laaj summa la tusalunna yowma idin ani naim yàlla nee na xam naa seeni mbir maa dañ kump man yàlla dara ump ma ci yéen dinaa leen fay inna rabbahum bihim yawma idin la xabiir kon nag mbokk yi juróom-ñett fukki yow maa ngoog ci yawmal qiyaam ak ñaar kon léegi loolu lañ leen digoon ci masaahid yawmal qiyaam xam naa du ñàkk beneen yoon ñu indil leen ñi nga xam ne itam moom la yàlla wax ci ñi topp yàlla ci aljanna yawmal qiyaam kon noonu la ko borom bi waxee kon fokk ñu setantal alquran fokk ñu bàyyi xel ci bés bu jooy lu bu tiit lu bi fokk ñu waajal yowmal qiyaam waajal gu mat fokk ñu waaj ngir dajeeg yàlla ci bésab pay bésab xisaab bésab jéggi siraat bésab dajeeg yàlla bés la boo xam ne war nañoo jëf ci topp yàlla lépp lu nu man balaa bés booboo ñëw nañu ko waajal niñ koy waajalee mooy jaamu yàlla am imaan topp borom bi kon nii lañ ko war a waajalee bu jëkk bi mooy nañ am imaan gu mat sëkk gëm yàlla te duñ ko boolee kenn ñaareel bi mooy nañu jéem a pratiquer ponki lislaam yi juróom muy ganaaw imaan julli woor azaka aj ñetteel bi mooy nañu rafetal suñ jikkoo nañu toroxlul yàlla nañu bàyyi rëy rëylu nañu bàyyi njistalu nañu bàyyi tooñ bàyyi ay bi xol nañu bàyyi ay bi bakkan nañu bàyyi topp bànneexu bakkan ñuy topp yàlla nañu rafet jikko nañu bay bakkaar te bakkaar ku nekk xam na ko ndax lu baax ak lu bon ñëpp xamee nañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na gàkk yi nga xam ne mooy am ci xol soo ko bëggee xam mu ne gàkk yooyu mooy topp bànneex mu ne lu baax nag mooy rafet jikko mu ne bakkaar nag mooy lépp loo xam ne sa xel du ci dal te boo koy def bëggoo kenn gis la kooku muslima ko solo yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul jënn jëf ju gën a diis ca peese yowmal qiyaam ci rafet jikko ma min asqalu fi lmizan fi yowmal qiyaam min xuluq nee na yàlla bañ na yàlla sax du bañ waaye du fay ku ñaaw jikko kooku Tirmisi yi moo ko wax kon nag nañu jéem a am suñu borom nañu jéem a ragal yàlla nañu jéem a topp yàlla te borom xam-xam yi ñoo gën a ragal yàlla kon nañ leen laaj nu ñuy ragalee yàlla ak nu ñu koy toppee innama yaxsha allah min ibadihi al ulama kon ci loolu mbokk yi ay jikko ngoog yu kawe yoo xam ne mooy musal ci àllaaxira abu darda yi nee na dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne suubu nga yoon ngir sàkku xam-xam yàlla dana la jàppandal ba nga dem aljanna nee na malaaka yi sax dañuy lal seeni wagg ngir ñi nga xam ne ñooy sàkku xam-xam nee na boroom xam-xam diine buy topp yàlla ñépp danañ ko ñaanal njëggal ci asamaan ak ci suuf jën yi sax danañ danañ naan yàlla yàlla nga baal boroom xam-xam yi nga ne lal ki xam ni mu gënee ki jàmm yàlla te xamul mu ngi mel ni ni weer gën a leeree yeneen biddiw yi mu ne boroom xam-xam yi ñooy doon yoninte yi yonente yi nag doon donnuñ leen ci dërëm ak i dinaar waaye ñu ngi leen nee ci xam-xam kon nag ku am xam-xamu diine tey jàmm yàlla am nga ab cër boo xam ne bu law la loolu Abu Dawud moo ko solo ak Tirmisi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla ki malaaka am ak asamaan ak suuf ak xorondoŋ yeeg malaaka yi ci seen pax yi ak xorondoŋ yeeg mellentaan yi ci seen pax yi ak jën ya ca dex ga géej ga ñoom ñëpp dañuy ñaanal ñi nga xam ne ñooy jàngal nit ñi aw yiw loolu Tirmisi moo ko solo yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na Sidna Ali nekk géñ naa ci yàlla ne nga wax ay wax ba nit jubee ci yow loola moo gën li jant bi fenk di ko tiim yépp nga am ko ci gëlëm yu xonq joxe ko ngir yàlla kooku muttafaqun alayhi la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku woote jëmee ci njub danga am ab yool yool bu mel ni yoolam ñi topp njub mi ngay wootee te di wàññi ci sab yool dara kooku muslim moo ko solo yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul kenn ku ñu war a añaane lu may ñaar ndax ñoom li ñu am dafa rëy mooy ku yàlla xamal ku yàlla jox alal te xiir la nga di ko joxe ci fi jaado